voudrais remercier toutes les femmes de la Casamance qui portent le projet de la consolidation de la paix en Et je m'engage à leur apporter mon soutien total dans cette entreprise. ma wax ni itam rôle jigéen ñi li tax am importance du rek cër bi leen yàlla jagleel ngeen nekk suñuy sœur nekk suñuy soxna nekk suñuy yaay. ku nekk xam na rapport bi nit ki di entretenir ak yaayam rapport bi nit ki di entretenir ak soxnaam rapport bi nit ki di entretenir ak sëram ay relation yu yàlla barkeel la puisque daf ko tabax ci cofeel donc seen influence ci ñun war nañu ko jariñoo pour tabax jàmm ji puisque ñiy xeex ñëpp am nañu ay jigéen am nañu ay yaay am nañu ay soxna donc bu ñoonu dajaloo ñaan leen soññu leen ci ñu dox jàmm loolu war na mën a yomb loolu moo tax seen rôle dafa nekk un rôle essentiel mais bu loolu weesoo démocratie mooy kenn ku nekk benn baat la li yàlla dogal mooy démographiquement maanaam ni ni suñu askan bindoo jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi donc vraiment seen baat dañ ci wara a tenir compte bu bu bu baax a baax sur le plan politique